ana eh dem leen dindi waaye te te defar kii bi. nañ daal di dindi ci la. nappi soxna si présenté wul na nga tudd. ñaana fay. soxna ñaana mu mel ni fan yi da ngeen euh, euh, réeroon seen i mbokk ñu njort ne dañ leen enlevé woon maanaam yóbbu leen mbir mi ndax mën nga ñoo nettali fan yi li ngeen doon dund naka la demee. fan yi lañ doon dund metti woon na trop ndax depuis àjjuma ba léegi ba ñu kidnappé ba léegi jox ñu ñu lekk jox ñu ñu naan sonnoon nañ loolu trop. fi lañ leen woon kay. bon bon avant ñuy egg jumaa ja lañ woon lañ ñu woon. ay ban heure la woon. ay dix yooyu rek. Hmm. Hmm. ki ñu kidnappé ma wax dëgg yàlla xamee woon ko ndax dafa masque woon. Hmm. da euh, moom daa mel ni daloon dem jumaa ja ndax yére alof la soloon après moom mu ne man jumaa ja laa jëm. moo tax ñu ñu yéeg. waaw moom bi oto bi bi mu demee ba ci kanam moom dafa taxaw wàcc bi mu wàccee mu am lu mu jël ci loxo mi après ñu bi mu duggaatee ci oto bi nag xamaatuñ dara ci feneen moom gisaatuñ dara ba ñu egg fi mu ñu jëmee bi ñu eggee fi mu ñu jëmee ay timis yooyu ay gée yooyu lañ yeewu bi ñu yeewoo benn saaru kaaw lu mel ni saaru kamb foofu lañu yeewoo ñun cinq personnes yépp bi yeewoo boobu xiif nañ sonn. xamuñu lu ñuy def jox ñu lekk jox ñu naan ñu yeewu foofu bàyyi ñu fi dem seen yoon. maanaam dañu takkoon. waaw dañoo takkoon suñu loxo yi ak suñ suñu bët yi. léegi bi ñu leen di ndax kenn kenn nit kese la wala ñu bëri la. ñun taxi bi moom kiy dawal kese moo ci nekk. taxi Mm-hmm. léegi ban àggee foofu ñu wàcc gisuñu fa kenn ñun cinq comme saaru àll la comme ay sëncaan yooyu gisuñu fa kenn ñun kese ñoo fa nekkoon ci benn kaaw boobu. Mm-hmm. léegi bi maam Jaara moo ko mm-hmm. euh, ñoom téléphone bi ñun maam Jaara bi muy wuyu ñoom dañoo génnoon. suñu déggee ñoom ñoo ngi ñëw ñu coupé téléphone bi. léegi foofu est-ce amoon na ay jigéen wala ay góor kese la woon. foofu amul woon ay jigéen de ñetti góor dong la ak ñun. Euh, euh, mel na ni maire it wax nañu ne da ngeen a nekkoon ci ndox nekk ci gàlloo ca loolu it loolu ci mën a leeral. nekkoon ci nañ ci saaru ndox ñoom daa mel ne dañ ñoo bëggoon a yóbbu feneen beneen dëkk. Mhm. léegi euh, lan ak lan ngeen fa jot a dund ci loo mën a nettali. wax dëgg yàlla dund nañ fa lu ndax boo toogee benn jour boo lekkul rek dafa metti xontumaa nga toog trois jours yoo lekkul naanoo rek loolu rek coono la te ñun en xamuñu loolu. ndax wax nañ leen lan moo tax ñu jàpp leen. ñoom waxuñu ñu dara ndax seen làkk yi ñun dégguñu ko comme saaru làkk ñag yooyu ñun dégguñu làkk yooyu xamuñu dara ci ñoom li ñuy wax. léegi bi mu demee noonu yéen naka ngeen def ba rëcc. ñoom benn jour dañoo xëy biñ ñëwee sax maam jaar ñoom dañ koo séparé woon boolewuñu benn jour lan ñëw bi ñu xëyee ñëw ñu boole ñu ñun ñëpp daal ñuy tikki bi ñu tikkee ñoom ñu génn ci bunt bi taxaw foofu di waxtaan ñoom bi ñu dem dañoo fàtte tëj affaire bi bunt bi dañ koo delloo noonu après si laa génn daan xool tëjuñu ko après ñu ma wax leen ñu daw. léegi boobaak léegi kon lekku leen daw bi ñu dawee ba yegg si Kër Massar lan dajeeg benn xale bu jigéen ñu wax ko may ñu ñu woote. ci la maam jaara woowee jëkkëram ji Malick Jabaay après ñu ne ko ñoo ngi fii dugalal ñu si ñoo bëgg a ñibbi xale bu jigéen bi daan ñuy benn maire daan meer bi maire bu baax la boole ñoo moom foo ñu toog noonu après maire bi moo wax ñi dañ leen sàccoon avant loolu far benn policier dafa gisoon suñ photo xam ne suñ photo yi dañ ko dugaloon si internet bi si la waa maire bi ñuy ñan la mu ne ko ñii dee dañ leen sàccoon mu ne ñii laay wër daati woon meer bi seen photo après si la woowee police plus u mbaaw après mère boobu jox lekk may ñu ndox ñu naan. lu mel noonu da ngeen ko da ngeen ko doon dégg ci Touba ndax jàppoon ñu moom ñun xamuñu fenn mosuñoo génn fenn suñu dem dem jimaaja buñ demul jimaaja amuñu feneen fu ñu dem. sàcc yi la yàgg nañ koo dégg mais ñun dañoo yaakaar ne woon ñun duñ mas a sàcc ndax ñun fooguñu ko woon foofu mais xam nga loola bett man la noonu la demee. juróomi nit ci benn taxi ndax ñu dugaloon dañ leen dugal yan anam lañ leen ci dugalee wala yan anam ngeen siy chargé ñun cinq personnes yi bi ñu duggee oto bi xatoon na trop ndax dañoo tàncaloo woon daal presque. Euh, mu mel ni euh, mbir mi euh, am na yeneen xale yu nekk ci biir Sénégal rawatina tubaa tey boo leen doon jox message ci ku leen di wax kaay yóbbaale leen wala ñu bàyyi xel jëf ju mel nii lan ngay wax sa moroom yi. moroom yi maa ngi leen ñaan ngir ku leen wax kaay yóbbaale leen na ngeen bañ ndax ñu loolu kese moo ñu yóbbu te mënoon nañ faa sànq mënoon nañ ñoo rey mënoon nañ ñoo def dara wala ñu tëddee suñu rakk yi bu ëllëgee buñ amee jëkkër mooy loolu seen jëkkër du leen comprendre wala seen goro du leen comprendre. léegi yéen jot ngeen a ziare ba pare ñu door leen yóbbu wala. Hmm? ziare ngeen ba pare. ñun avant ñuy ziare ba toom ziare gun ñun dañoo xëy bi ñu ndekkee ba pare lan dem ji ja. sama baay ñu ngi lay nuyu si barakatu. ñu ngi leen di fay fay gi gën a màgg ci fay yi. di leen siyaare siyaare bi gën a màgg ci siyaare yi man ndongali Baara Ndiaye ndongal guy mbind lañ may wooye ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di bala ñëpp àq di leen balaax di waa xale yi de maay seen ndey maay seen baay maay seen maam maay seen nijaay maay seen lépp. mel ni tey ñibbisiwaat nañ ci seen waaw borom mi dogal dogal na ñibbisiwaat nañ ci eh, loxoy seeni waajur tey ñu ngi ciy sant yàlla bu wér wér wér wér di ci sargal bokki jullit yi ak bokki taalibe yi di sargal bokki dëkkandoo yi ak yéen préf bi nga xam ne yéen a ngi sol seen dàll lu yëngu ngeen ne ca da ci def ak leeral goo xam ne nit ñi danañ ca mën a sukkandiku ba xam li ñuy def lu mu doon bu loolu jàllee ñu ngi sant administration bi parce que li tàmbalee police gendarmerie ba dig lépp kenn ku nekk li la ci war a def nga ko ci taxaw nga ci taxawaay bi nga ci war a taxaw ba lim ba nii mu demee mu demee nii ñu ngi sant itam euh, bokki dëkkandoo ak bokki jullit ak bokki taalibe yi di ñaan sa borom yàlla defal leen jàmm defal nu ko Eh, li ci jëkk nag mooy noonu dañuy doon dañ di ay jullit di ay taalibe lépp lu dikki suñu kaw dañ koy jàppee nattub suñu borom nga xam ne yàlla mooy dogal te coobaram rek lay dogale kon lépp delloo nañ ko ci yàlla ñu ngi sant tey gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu nii lii dab na seen njaboot te ëllëg mën na dal geneen njaboot yow en tant que père de famille ngeen dund li fan yi yëpp lan ngay conseiller euh, ñi yore njaboot yi euh, ngir ñu gën a bàyyi xel jëf ju mel nii waaw loolu ñu ci wax rek ñu dollee góorgóorlu xam naa njaba borom kër yi sax ñu ngi góorgóorlu man waaye ñu dolli ko rek ndax euh, li xale bi waxoon léegi loola bett man la li mbetteel rek ndax xale yi xamuñu fenn fu dul kër gi duñ dem fenn duñ dem grand place duñ dem marché duñ dem euh, fenn duñ fa dem daal bu ñu génnee kër gi daal dañoo dem marché duggi dellu si ci kër gi wala ñu dem jumaa ja siyaare yi daanaka tànk bu gàtt ak euh, ñàkk a dox ci jamono moo tax ñu mën leen nax naxe nii ñu leen naxe ndax ñoom xamuñu dara lu mooy seen seen kanam waajur yi rek kon ñu ngi dénk ñëpp ñu góor góorgóorlu ci njaboot gi te sàmm leen te saytu leen te sa borom mi maye mu may nu euh, nu man leen saytu te mu jàppale nu ci bu yu mel ni man a gàtt ñu ngi dénk ñëpp daal ñu góorgóorlu ci njaboot gi ndax njaboot moom ku ko yàlla dénk ku ne am na war-war bu la ca war boo xam ni sunu borom na la ko laaj bu ëllëgee kon nañ góorgóorlu ci njaboot gi ñu ngi sant mu mel ni njaboot gi diggante waajur yi la ak ñi nga xam ne ni ñoo de ngóor gi yor gi Touba jamono yi ñàkk kaaraange gi fës fi yow nga dëkk Touba li dal ci sa kaw lan ngay wax ci côté boobu ñàkk kaaraange gi jamono yi. waa loolu moom yaatu na yaatu na torop torop torop torop torop torop mu mel ni dafay am loo xam ne boo ci duggee day mel ni wàllu ñaxtu wala kii mais fekk loolu amut dafay tollook ab dëkk daal boo ca dëkkee wala am réew boo ca dëkkee am réew boo ca dëkkee am na lu la ca war waaye am na lu ñu la ca war am réew boo ca dëkkee wala dëkk boo ca dëkkee am na lu la ca war waaye am na luñ la ca warlul loolu nag li ci manqué mooy dëgg lañ ñi ne ci ñi nga xam ne indi nañ leen ci dëkk bi ñu di ay ay ay ay takk dara jumbulee xay na ñi ngi def liñ man mais li dafa bari parce que dëkk bi dafa lëndëm dafa lëndëm këriis euh, lën lëndëm gi foo ko takk weesu na ko ñaareel bi wax dëgg bu doon suñ sago ñi nga xam ne ñoo dox suñ digganteeg ak administration bi lu mel ni bu amee ñu gis fi leen ndaw wala ñu dégg fi seen kàddu loolu am na ci solo sànq rek maa wax ma ne gone yi man de euh, Abdoulaye ko dégguma ko fi dégguma ndawam tey jàppoon naa ne dëkk bi comme moom la ci sëriñ bi teg muy ndawal sëriñ bi lu mel ni su amee war na faa teew mbaa mu yeble fa xëy na nag ñàkk jotam la wala xat-xati jamono waaye loolu daal bokk na ci li nga xam ne euh, noo ngi ñaan daal pour lu mel ni yëngu daal mu teew fa mbaa ndawam. kon daal bu la déggee kilifa euh, aada yi nekk ci dëkk bi bi affaire bi amee léegi kenn ñëw fi di leen masawu coono. non non gisuma fi kenn. waa kenn laa fi gisut chef de moom chef de sëñ bi moom du administration sëñ bee ko fi teg. waaw maanaam administration bi moom xam naa diggante police gendarmerie daal lépp lu leen war moom def nañ ko moom police ak gendarmerie lépp lu leen ci war def nañ ko ci waaye nag foofu la yem de moom.